allah ma ne ko macha allah whatsapp bi moom macha allah euh, may ñëw nag di participer ci série maîtresse euh, vingt-neuf bi rek hmm, maa ngi ciy participer euh, di wax ne Marème moom wax dëgg yàlla am kenn moom série bi moom bii passé moom wàcc na fi ba dara dëgëre ndax li olof njaay di wax nee na fen wuy defar moo gën dëggu kuy yàq ndax moom wax na lu amul ba ci la jóge sëy ndax li ñuy wax naan nit looy wax lu nekk rekk nanga ko ñeme buñ la doon teg paaka sax nga ñeme caa dellu waaye la ak yaayam tiit nañ moom it amaale na ci occasion buruxluwaale ci ba sëyiwaale rek defaale sëyam te li wax seex tamit dëgg gu wér ceeng la ndax fi ne seex rek la wékk àddunaam sene góor ñi nag moom loolu rek moo ci bari moom ngir ñoo xam ne ni dañ lay xemmeem rek doxaan la takk la yóbbu la seen kër di la maltraité waaye yaakaar naa Marème moom du ci bokk ma ne ko moom du ci bokk laal la moom man moom aawa waaye aawa bu ko xeeb laa ko xeeb moom balaa neex kenn wujje bala ngaa xam ne ñoo xam ne baax na baax nga rek mbete nga am wujj waaw laal la ngi wàcce garaatam mu ngi wàcce garaatam nuyu naa ñëpp di datagal ñëpp. asalaamaaleykum asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa série bi série bi neex na torop waaye man kenn rek moo ma ci metti mooy joor ak jalitang ni mu nekkee xaritam amul lu muy def lu dul ginnaaw ko dem nangu jëkkëram bay mari moom te loolu yemu ci biram nala invité Jalika ñëw ci anniversaire bi ah? moom kay am na lu mu ragal ndax lu ragal sax dafa rus jàkkaarloo ak jali ndax lu mu ko def te xamal na ko lépp xaritam la benn bakkan lii moo tax xarit amatul dangay wóolu sa xarit nga def ko muy lépp léegi xoolal jali li ko dal joor daal bu tëddee sa warul tëdd ak conscience tranquille série bi daal neex na torop neex na torop Marème nag dama ko fan dama ko fan parce que lal la léegi lu muy doxalee du noonu ñaareel moom bokk wërsëg la du dara wuje du dara ok merci maa ngi leen di nuyu ñëpp asalaamaaleykum waa Lu Xew TV ziar naa leen maa ngi leen di nuyu di leen di leen ñaanal jàmm seen joolaar yi moo ñëwaat rek di leen jaanal jàmm ju bëree bëree bëree bëri yéen ñëpp yàlla ku ne sama sama voix fu mu ko dëgg fu mu ko fekk rek nag a fekk ci jàmm waaw kontaan naa nag tey marem marem mention très bien kontaan naa euh, li nga wax ni da nga sa goro ah puudar sa goro rëy na mais xoolal xalab nga ko tey da koo xalab da leen xalab ci biir laaj bi moom di dafa waroon jóg rek sa goro dafa waroon jóg rek ñibbi tane waaw parce mu ngi doon laal plan am ndeysaan yàlla yàlla may la sago ba nga ci génn lan la pireem bi lan la lan la lan sama xarit dëmb barki dëmb xoolal nee naa la bàyyil marem man aawalaa ni yow mais nee naa la nga bàyyi marem bàyyi marem dalay dalay gësam marem dalay gësam marem jàpp golo bu leen ko nangu xooleen defante leen ak marem ci ci ci ci discipline marem xoolal ngeen koy bay moom moo a moom moomee fan bàyyi leen ko ngeen seetaan ko dëkk bu dëkk bi nga doon bañ na ngeen dëkk xoolal jaay na la jikko jikko jikko wuyu du dëgg kon nag xoolal bu ñëwaatee nag ngeen dëkk xoolal léppum nag ci lii la nii lay sama xarit benn bakkan yow la la marem daal xoolal jàppal ma marem génération ak sa génération bokkul àjjana bi nag dégg gu ma ko de wool ma ko àjjana waaye baal ma dama la ko ñaan man sa joolaa bi di leen ñaanal jàmm yéen ñëpp kontaan naa waaw bu buñ ci jógee eh, kii nu tudd sax Euh, buñ ci jógee yaayu yaayu Jalika waaye yaay Jalika yow loo def ci lu bon ci àddina sa rafetaay bu jekk papu Jalika loo leen def ci àddina ci seen ci toogaay ah yaay rakki nag yow pareel yaay rakki pareel rakki de jox na yaayam ndikki papam ndikki te xamu ni mooy papam yaay rakki dama ne nga pare rakki mu ngi ñëw dal sa kaw macha allah di ñuy yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm. salaam salaam salaam salaam yéen waa Serigne Maîtresse waaw maa ngi leen wax ne leen nag kontaanati nañ bu baax baax a baax ci série waaw ñun waa Kolu Essa bi ñu ngi seetaan ñu ngi bëgg ñu ngi enjoy bu baax a baax a baax waaw joom moom dafa juum waaw juum na ndax ba mu amee ñàkk ngoro na nga jëkkëru xaritam la waroon a am ngoro te doomam. minti guddi jàpp xale bi di ko defi kenn xamul di wax di eh, wane ne moom mënu ti xale bi ah dinañ leen reetaan dinañ leen reetaan de ñi nag olof ngay moo wax ne lu dëgg du yàgg waaw salaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen di leen ngi am jàmm a baax ci bi nga xamante ni mooy Maîtresse di série neex bu am chance bu am chance sax waa am naa ne ñëpp a ngi koy seetaan waaw man daal leen rek laa compte ci série bi mooy Cheikh Ndiaye neexuma ndax loo xamante ni yow ay kilifa dañ koy seetaan yaakaar naa ne war nañoo rafetal lépp loolu moom bokk ci biir moom ay tukkutaan ak ay daani lal yooyu dafa rafetul ci dégg sax waxuma laa di ko gis waaw rafetul rafetul même tamit ni muy defee tamit neexuma. moom itam biram moom tamit noonu lay def luñ daan sëy ak kii tamit neexuma daal neexuma dañu war a taat seen bopp sansé waat di koy defaraat toogaay ndax nit moom xam nga ñëpp a yam dañuy wax rek wax rek la ñuy def loo def tey bu subaa ñu xëyee la ko noonu la ñuy def def su ma sañoon ñu xalaat seen bopp baax baax waaw di wax ne laala moom luñ ko def keneen kuñ ko defit ni réagir rek noonu ngay réagir naa la wax dëgg yàlla jigéen baax la mu ngi sëy mi ngi toog toog borom këram man gën a neex ci moom rek bu ne ko rek sama xol day sedd day man na sëy noonu dara gën a neex yow nga toog sa réew gën a def ba baax defar bu jonga ma toog di xaar sa borom kër amul lu lay teeroo di la jox kàddu boo xamante ni suñ ko wax ku nekk mu jàpp la day rek naan waa takk naa ko loolu mënoon na maa sax daan ni am tarjaag tarjaag rey ni mu dee loolu moom wax dëgg yàlla moom dañu war di xoolaat seen bopp daal moom neex na lool mais mën nañ jàng daal na xoolaat boppam ñu doon xale góoram bi ko xasaka yuux loolu baaxul bu bëggee say na ko bàyyi te topp ci bu dem woowu. bu baax. ma ñëwaat ci série bi tay rek am lu ma ci waxaat tuuti ah tey Marème nag kontaanaat naa ci yow dëgg yàlla def nga geste bu rafet yow xam nga ni seex dégg na li moo li ñee mais danga ñëw rafetal ba mu rafet dëgg la danga leen a jaay xelu mag noonu la wujje du question ay defante ji danga koy jaay xelum mag ci suuf moom buy def ci kaw yow ngay def ci suuf jaay ko xelum mag tey jii geste boobu nga def tey moo tax li nga li nga am nii nga am ko te bul teggi sa loxo kat fi ko jàpp foofu la kontaan naa ci yow torop ma ñëwaat ci kaaliru biram xaw ma lu ko dugg ci takk xaritu jalika bi mais doy na waar xam naa ne xelam moom ñu ci Jalika ba léegi te kee tamit xam naa ni moom yu bari yi Jalika doon nangu moom du ko nangu moom moom du ko nangu parce que Jalika yu bari da koo nangu woon te kii moom nekkul Jalika dafa pànk kii moom yu bari du ko nangu mais daal xam naa ni daal doy na waar daal doy na waar trop ok jërëjëf merci salaamaaleykum waa Marodi TV maa ngi leen di nuyu di leen siyaare na ñëwooti rek ci suñu film bi neexati na tey neexati na lool Marème Xarnafi <laughs> ma ne ko Marème ah, ni laa ko bëggee de ñaaral day jonge jonge rek na Marème rek si jonge doyut bay des léegi na nañu xool baxam xam laal la moom nu muy def non Marème nim leen def sax dafa ëpp moom ñoom ñëpp rus na ndeysaan ay waaye yaay ji dafa ruus ruus ruus ba bëgg a dee laal la ni ko danduma <laughs> mareem ñëw fël feneen <laughs> ay mareem mooma moom mooma saf dey laal la na dinañ xool na baxam na laal la dina boot mareem wala du ko boot ba xam na seex dina nekk kilifa na yor ñaari jabaram yi ku ne mu tegle ci yoon loolu rek laa yàkkamte na xool na baxam xam mareem nu muy def ak laal la nu muy def ak mareem baxam xam nu muy réassuré ah doy na waar ëpp na. jàpp na neex na lool sax ma ne ko neex na lool mm, mm, jalikana ako ah, jalikana mi ngi bëgga dal uh, joor <laughs> joor moom gisagut dara nañ dem ba ci kanam ma ko gisagut dara day na waar daal film bi daal moom neex na neex na neex na neex na lool trop sax neex na maa ngi leen di siyaare jox seen wàccuwaay waa asalaamaaleykum waa maîtresse d'un homme marié waa Marodi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ni macha allah macha allah seen film yi neex na neex na trop ma di leen jox nag tey ji sama njàngatu tey bi si Jalika lay doon parce que Jalika moom li mu wone woon ci diggante moom ak euh, xaritam dëggalu ko dëggalu ko parce que doom ji wane na ko parce que nii mu def doom ji sax. baax na ndax papa ji mën koo delloo ci yaay ji mën koo delloo ci yaay ji mais kontaan nañ ci yéen kontaan nañ ci yéen torop laala nag il faut mu jéem a supporter Marème parce que Marème mii dafa ñëw pour defante seeg moom il faut mu mën ko supporter te aussi tamit goro bi nii la mën a demee parce que moom laala dañoo yàgg parce que lu yàgg rek dëgg la moom laala moom dañoo yàgg te nit mënoo bëgg ba pare bëgg a bañ looloo tax mook laala dañoo yàgg nii rek lañuy mën a defee waa kay jërëjëf kontaan nañ ci yéen te ba léegi euh, gis nga sëy neexul di nga muñ ndax sa njaboot ma ko di nga muñ ndax sa njaboot kon muñ delee naa war muñ delee laa war muñ deleen mës a wàcc bukk ni muñ yéegee sunu kaw ba ngeen daan góor moo war a muñal jigéen noonu la jigéen war a muñalee njabootam. xam ne njabootam euh, moom moo moo moom moo mën a dimbali njabootam ëllëg parce que njaboot dafa foor waaw gis nga Amina li muy dund noonu ci joor lu koy yuuxu di ko jéem a tere néegu papaam xam nga te booy bi xale la loolu day dem ba perte loo ko ay réseau xam nga euh, yàqal ko lu baree baree baree bare yàqal ko lépp concentré du concentré wu ci li mu war a def daal parce que fu mu toog rek day xalaat li am li jor di ko def waaw kon loolu doy na waar ba léegi loolu doy na waar maa may wax ci xale bu jigéen bi toj gee jamono fi mu ne nii Marème Marème wax dëgg na yàlla neex na ma neex na ma lool kar masala li ngay def moom neex na ma la kay Marème toj nga fi tey Marème toj nga fi wallaay toj nga fi waaye man moom def naa kontaan ci yow parce que xam na ne lala moom loo ko loo ko laal rek doyul loo ko laal rek doyul tax lala defa soxor dafa bon mère Diagne kenn waxatu ko mooy door naa ko to yar bokkul mhm. dama leen a danga leen a door to yar bokkul Marème kay moom euh, benn histoire rek laa koy xoolee ndax euh, histoire boobu Marème wax dëgg def ma cee jàngalaat tuuti histoire boobu benn borom benn benn waa benn benn paa bu teradi la woon benn paa bu teradi boo xamante ne euh, buy lekk rek day tuur buy lekk rek day tuur léegi borom borom xam benn borom benn xam-xam ne leen indil leen ma ko dinaa ko yar indil leen mako ko dinaa ko yar waaye bu ko buñ bu mu demee gane si eeru añ jot moom moom bu mu doon lekk rek euh, wax dëgg neex yàlla lekk bi day el di tuuru lekk bi day tuuru lu muy lekk rek di tuur waaye bu mu demee gane si borom xam-xam boobee ko ne ah bu xaar ba waa ji dafa xaar ba añ jot mu taaj ba ñu taaj añ bi waa ji faq yar moom jox ki nga xamante ne mooy gan bi di tuur ne ko xale yi de xale yi de euh, lépp lu ñuy lekk lépp bool bu ndab bu ñu sukk rek euh, dañuy ël di tuur waaye xale bu fi tuur rek na nga door am yar baa ngi nii xam nga ne ki ñu denk yar pour nga door ku tuur yow doo tuur waay euh, kon mareem tey moom door nga euh, maire Diagne ak lalato laaloo leen sa loxo laaloo leen nit daal da ngay am xel am confiance euh, sa xel di naaj ci tuuti ni ngay doore mare sa door neex na ma euh, sa door neex na ma wax dëgg sa door neex na ma mare lala rus na yërëm talu na yërëm kon ak mareem door yi métti nañ de door yi métti nañ asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi su ma ñëwee rek euh, xëy na indi sama contribution ci maîtresse euh, man nag tey fu may ñëwee euh, mu ngi nekk Amina mi Jalika ak Dior vraiment gis ngeen xëy na li joor di doxal ak Amina di ko perturber fu ne la ko jëmale di ko. di ko yuuxu di ko def lu ne euh, war ngeen xool noonu parce que jigéen boo xesee booy sëy rek boo xesee bu am doom wala nga am benn doom wala ñaari doom yaa xam ñaata doom nga am waaye boo xesee bu am doom rek euh, war nga sam maanaam sa sey ndax say doom parce que doom yi euh, say doom nag xamoo lu mu leen di loolu dem bàyyi leen xamoo lan la leen mën a jural ëllëg parce que mën na leen a manque de respect mën na leen dugal manque de respect mën na leen dugal manque xel mën na leen dugal manque de confiance xam nga euh, ba gis nga joor li muy def Amina foofu noonu euh, mu ngi koy yuuxu du ko gët xam nga te nit ki wax dëgg neex yàlla euh, booy sëy te ngay muñ ndax sa njaboot ndax boo xesee boo am njaboot rek njaboot bi ñoola la moom moomatoo leen kon nañu jigéen ñi nañ bàyyi xel ci loolu bu baax te ba léegi euh, gis nga sey neexul dinga nga muñ ndax sa njaboot ma waxati ko di nga muñ ndax sa njaboot kon muñ delee naa war muñ delee laa war muñ deleen mës a wàcc ni muñ yéegee sunu kaw ba ngeen naan góor moom war a muñal jigéen noonu la jigéen war a muñalee njabootam xam ne njabootam euh, moom moo moo moom moo mën a dimbali njabootam ëllëg parce que njaboot def foor waaw gis nga Amina lu muy dund noonu ci joor lu koy yuuxu di ko jéem a tere néegu papaam xam nga te booy bi xale la loolu day dem ba perte loo ko ay réseau xam nga euh, yàqal ko lu mu baree baree baree bare yàqal ko lépp concentré wu du concentré wu ci li mu war a def daal parce que fu mu toog rek day xalaat li am li joor di ko def waaw kon loolu doy na waar ba léegi loolu doy na waar ma may wax ci xale bu jigéen bi toj gi jamono fi mu ne nii Marème Marème wax dëgg na yàlla neex na ma neex na ma lool kar masala li ngay def moom neex na ma la kay Marème toj nga fi tey Marème toj nga fi wallaay toj nga fi waaye man moom def naa kontaan ci yow parce que xam na ne lala moom loo ko loo ko laal rek doyul loo ko laal rek doyul tax lala defa soxor dafa bon mère Diagne kenn waxatu ko waaye tey moom mooy door naa ko to yar bokkul Mhm. dama leen a danga leen a door te yar bokkul Marème kay moom euh, benn histoire rek laa koy xoolee ndax euh, histoire boobu Marème wax dëgg def ma cee jàngalaat tuuti histoire boobu benn borom benn benn benn benn paa bu teradi la woon benn paa bu teradi boo xamante ne euh, buy lekk rek day tuur buy lekk rek day tuur léegi borom borom xam benn borom xam-xam ne leen indil leen ma ko dinaa ko yar indil leen mako ko dinaa ko yar waaye bu mu ko buñ bu mu demee gane si eeru añ jot moom moom bu mu doon lekk rek euh, wax dëgg neex yàlla lekk bi day el di tuuru lekk bi day tuuru lu muy lekk rek di tuur waaye bu mu demee gane si borom xam-xam boobee kooku de ko ne ah, bu xaar ba waa ji dafa xaar ba añ jot mu taaj ba ñu taaj añ bi waa ji faq yar moom jox ki nga xamante ne mooy gan bi di tuur ne ko xale yi de xale yi de euh, lépp lu ñuy lekk lépp bool bu ñu ndab bu ñu sukk rek euh, dañuy dal di tuur waaye xale bu fi tuur rek na nga door am yar baa ngi nii xam nga ne ki ñu denk yar pour nga door ku tuur yow doo tuur waay euh, kon marem tey moom door nga euh, maire Diagne ak lalato laaloo leen sa loxo laaloo leen nit daal da ngay am xel am confiance euh, sa xel di naaj ci tuuti ni ngay doore mare sa door neex na ma euh, sa door neex na ma wax dëgg sa door neex na ma mare lala rus na yërëm tal na yërëm ko nag mareem door métti nañ de door yi métti nañ waaw lu xew ti bi ñuy naa leen sa Tuuba la ci wote Tuuba la Linu liñuyoo seeri matres ak naa ñepp di wax filon bi neexna neexna torop machala neexna moom wax dëg yàlla filon bi neexna wax dëg man moom mare moom kuma neex la mare moom dëg yàlla kuma neex la waa ndax meer bi lu mbëggoon amu ko amagu ko dax dëko roxna dina feex ba seex wacca. waaw maram mënoon na koo net te seex lool waaye du ko def maram dafa bëgg ñu seen biir di leen naqaral te duñ ci man dara loolu rek la koy faje maram dina fa sëy bu soobee dina fa sëy ndax maram moom nekk na nit koo xam ne dafa ñàkk jom waali mu leen dund leen ndax moom neex na ma ne mel moom neex na ma moom laala rek mooy dee rek ndax laala moom du mën a supporté maram te moom ni ma ko gisee moom soobee yàlla nangu na lépp la fas yéene lépp ko laal na mu boy bumu xob xolam boobu raxas bam set jëm àndam bu ko defutul moom mooy soon ndax moom fiir na ki moom dund ko te seexit nom na ko te xam naa luñ ko mën di wax tey ëllëg maanaam dina wax ba génnaat ja luñ ko mën def dina feex man daal neex na moom wax dëgg yàlla moom moom neex na moom masha allah gisaguma série bu ko daal daal asalaamaaleykum waaye egfa réew mi maa ngi leen di nuyu di leen jaare di leen wax macha allah seen kii am na solo trop li ngeen di def am na solo ah, di ñëw si épisode euh, maîtresse amoon démb hmm. mu nekkoon épisode 39 di wax Marème na def très attention ndax ni manigaase ah, def affaire lu ko neex ah, def affaire seytaane waaw ah, manigaase ba dem sëy ji na xaar ndax na seetlu li koy xaar après après liy nekk ci ginnaaw après na ko xool ndax parce soo bëggee sëy di nga respecté sa yaay a jox ko cër boo ko joxul cër ci jamono ji ñu nekk deseet mag ma nga xam ne dese na kàttan xam lépp du sotti de te gorom boobu moo ko gën a capable junne yoon mais mënoon na dem am yar ati teggin ndax mag mag rek la mën a doon kantaa moom bu jëm yi muy dem fekk yi ah, mënoon na ki jox ko ci ndax ki la jiitu ci kër ëpplee la fa dara waaw Cheikh nag li muy def boppama fees xamut li muy def boppama fees mais doonul góor ba nga xam ne mën naa yor ñaari jabar waaw ndax parce laal la moom fi nekk nii amatul nu muy def ak ni muy wax na parce que nam ko nam ko war la daal moom duma ko teg toor ko war na diin gi mu diin après dina na garde diingam ba nga xamante ne nii après mare moom xamul li nga xamante ne nii mooy nekk ci ginnaawam après wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf